thank you alhamdulillahi rabbil waahidil ahad fi mulkihi jalla an idrakihi albashar salla ala rahmati daarayni baari'una wal aali wassaxbi wattaabici alxiyar wa radiyallahu an jamici saxaabati ajmacin wa an jamici xulafaa'ihi wa man ittabicahum bihudaahum ila yawmi albaas wannusuur mbokk yi ñu ngi ñëw ak yéen ci seen émission Shukran suñu juróomeel bi tomb tey ci weeru koor war a waxtaan ak yéen ci jikkoy ki nga xam ne moom dong lañu yàlla royloo di sant bokk bu baax nag bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay fu ñu mën a toll di ca jiital sunu yaay Ndey Kumba Wadd di bàjjunu gox ca Berkele ñu koy sant bu baax ndax kuy safoo jataay bi la kuy safoo kër gi la kon yàlla na yàlla guddal fanam te may ko wér yàlla nangu jaamu yàllaam nangu suñu jaamu yàlla defal ko ko ba illaa yawmi euh, mbokk yi tey nag ñu ñëw ci suñu tomb di wax ci ki nga xam ni moo gën ci nit ñi bi yàlla bëggee bind jaam ñi ci photocopie sallallahu alayhi wa sallam ci la yàlla amale jaam ñi ndax moo tax léegoo leen mu daan wax ne ana min allahi wa muminuuna yàlla laa am ak affaire waaye jullit ñépp man lañu am ak affaire te nag yàlla bi mu bëggee bind sallallahu alayhi wa sallam daf ko bind ci ñëbu leeram ndax keroog bi mu ko yéegee ci isra wal miraaj bokk na ca qualité ya mu ko waxoon ak garantie yi ko sunu borom bi subhaanahu wa taala joxoon mooy yonent bi dafa laaj yàlla ne ko sunu maam aadama yaa ko bind ci sa loxol bopp te loo bind ci sa loxol bopp loo fonk la yàlla ne ko dëgg la bind naa aadama ci sama loxol bopp mais yow maa la bind ci sama leeru bopp te looloo gën a foor maanaa yonent bi dogit la ci sunu borom subhanahu wa taala mu ne ko yow sama borom sama maam Ibrahima da ko jàpp comme xarit yàlla ne ko def naa la soppe te soppe moo gën a for xarit mu laaj yàlla ne ko yaa ngi wax ak yonente yàlla Muusa min waraa xijaabin ci ay gannaaw kiiraay ay paravent yàlla ne ko man maa ngi wax ak yow sans intermédiaire sans paravent parce que su ma dannaa fa tadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa yonent bi dañul di jege boromam borom dañul di di ko xëcc ba mu sës ku rëkk am na ñu dem ba wax sax ne leeru yàlla dem na ba lekk leeru sallallahu alayhi wa kooku nag la ñu bëgg a waxtaan ci ay qualité am tuuti xëy na du xaj ci émission bi waaye ñu coppati ci tuuti rek baaxe ko bokki jullit yi euh, bokk na ci li ko yàlla tagge mooy wa innaka la ala xuluqin azim yow sallallahu alayhi wa sallam daal duma la tagg ci ndey duma la tagg ci baay ci jikko ju baax laa lay tagg kon mbokk yi ko am na solo jikko rek la nit di baax la ku ko gis bëgg ànd ak moom waaye jikko rek la nit di yor mu safaanu ku ko gis kenn du bëgg ànd ak moom ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jëlee ci sayidatuna Aïcha radiallahu anha ah, mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al abda la yudriku darajata saaimi alqaaimi bi xusni xulqihi yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi dina am darajay ku woor ak ñi koor foore ci jikko ju rafet waaye boo bëggee def ku la def nga def ko ku la tooñ nga ne ko ëppoo ma fulla ku dal ci sa kaw nga ne ko gënoo maa dof day tax dof yi bari rek mbokk yi ndax wa min chiyamil axyaari dafu mafasidin bihim yataassa man safa nuura lubbihi ah, dafa bokk ci qualité jikko ju baax mooy ñu tooñ la nga mën a jekku ci fayu baale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def musul fayu jële nañ ci anas ibnu malik mu ne servir naa yeneen yonent bi pendant dix ans ma toj kaas ba yonent bi ne ma lu tax nga toj ko baatu lu tax li ma nee na yonent bi musu ko jëfandikoo seen diggante ñoom ñaar kon kooku mooy tedd ngay jikko yi moo tax yàlla indexé ko ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axar wa dakara allaha kasira yàlla nee na am ngeen qualité jikko yu baax yu ngeen mën a roy ci yonent bi su fekkente ne yaakaar ngeen yàlla yaakaar bis pénc ne taxaw dina am yàlla nee na na ngeen roy ci sallallahu alayhi wa sallam parce que mooy miroir biñ leen xoolloo euh, mbokk yi jullit suñ ko xasee ba joxoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amatul possibilité dévier kanamam jëme ko feneen ci yonent bi rek la mën a xool euh, moom sallallahu alayhi wa mu daan wax ni melokaanu borom jikko ju baax ak borom jikko ju safaanu nee na melokaanu borom jikko ju baax mi ngi mel ni nga dend ak jaaykatu parfum nee bu la xeeñalul nga xeeñ ca boo xeeñee xet ga mën a yóbbaale sa xet fu ñu toog ñu ne li ngeen di xeeñ ak a neex moo tax toog ak borom xam-xam wala toog ak jikko ju baax doon qualité waaye mu ne toog ak jikko ju safaanu mu ne mu ngi mel ni nga dem ci palaasu tëgg dem ci fa ñuy uppee xal ya nga toog fa sallallahu alayhi wa sallam nee na la nga fa mën a jële mooy yiri yu bënn wala xeet gu naqari gu la fa toppe kon borom jikko ju baax te nag dañuy wax ne wax ma saxarit xarit ma wax la sa jikko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li ko sayyidatuna Aïcha seedeloon mooy kaana xuluquhu alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran la woon joo xam ne mi ngi dox ci kaw suuf euh, dafam am benn saxaabi yu bu ñëw laaj sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ne ko dama la bëggoon a laaj qualité yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ma fexe mel ni moom mu ne ko ndax yaa ngi jàng alquran mu ne ko waaw mu ne ko boo jàngee alquran rek jàng nga jikko yonent bi soo jàngee al alquran rek tariwaale nga jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi suñ bëggee xam kan muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy xeeñtu fa mu jaar ñu fexe faa jaar ndax nag dañuy wax ne ku la tax gën koo gën woon te defoo lu tax nga gën ko waruloo koy fàtte foo toll war nga koy bàyyi xel ndax Muhammadul Busheeri wax na ko ca burdu ba ne lamma daa allahu daaina li taatihi bi akrami na kunna akrama al umami Muhammadul Busheeri radiallahu anhu nee na bi yàlla joxoñee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ma gënal ci loo bind ñun ca la ñu doonee ngën ji xeet moo tax yàlla wax ñu ci alquran ne kuntum xayra ummatin li linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkar yàlla wax na ci alquran ne yéen xeetu sallallahu alayhi wa sallam yéen a ma gënal ci lu ma bind ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngeen di digleente lu baax waaye nag di terente lu bon kon mbokk yi ci jikko ju baax wala ci jikko wa jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la nit ki di demee ba àgg ci njobboxtalu jot la mu soxla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yowmal qiyaam kii gën a jegeeg man jataay ci toogaay mooy ki gën a rafet ci yéen jikko ahasinukum xulqaa kon mbokk yi nañu fexe jikko jikko ju baax te nag euh, mbokk yi bu lépp dajee yàlla buy tànn li gën a baax lay tànn kon nañu fexe gën a góor góorgóorlu fexe ba defar suñu jikko yi mu gën a baax rawatina ci sahru ramadan al mubarak nga xam ne lu ci waay amul bu la rawee na la parce que weeru bonus la weer la woo xam ne benn boo ci def yàlla fule la ko ndax alxasanatu bi asri amsaaliha benn bu baax boo ci def yàlla dana la ko fulal ba muy fukki yoon kon mbokk yi euh, ataqalluqu bi axlaaq sharia mooy melo melow jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom daana wax ne adabani rabbi rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla sama borom bi subhaanahu wa taala moo ma yaral boppam te yàlla rafetal na ni ma yaree moo tax sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni euh, mbokk yi jikko ju baax daal lu ko nit jënde defe naa jërul euh, jar na kon loolu moo doon seen juróomeelu tomb ci seen émission shukran ñu doon leen ko defal ci dakar midi point net euh, bi fadilati sunu sëriñ ñu ngi leen di ziar bu baax salaam aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu